ñeenti fan rek ginnaaw bi nu ko faatee waa hôpital Le Dantec bu dakaar jébbal nañ enquêteurs yi commissariat central bu Thiès résultat autopsie bu Marème Diagne di xale bu jigéen bi nga xamante ni ku ñuy wax Assane Gueye nekkoon aparam moo ko faat samedi gi nu génn médecin légiste bi nag xamle ni ni ci rapport autopsie bi kii di Marème Diagne mu ngi faatu ginnaaw bi mu amee ab ab plaie traumatique ci wetu baat bi loolu di firndeel rek ni ki nga xamante ni moo di Marème Diagne dafa amoon ab hémorragie interne ak hémorragie externe boo xamante ni li ko waral moo di ab jam-jamu paaka donc ñu mën a jàpp nii rek ki nga xamante ni moo di Marème Diagne Assane Gueye daf ko rendi beneen mbir nag bu doy waar boo xamante ni autopsie bi révélé na ko moo di ki nga xamante ni moo di xale bu jigéen bii di Marème Diagne dafa ëmboon ba toll ci ñetti weer ci fàttali nag bu ñu sukkandiku ci Assane Gueye dafa joge woon uniquement ca Maroc ngir jël si bakkanu ki nga xamante ni moo di Marème Diagne mi nga xamante ni dafa jàpp ni daf ko trahir maanaam daf ko woor ay fan rek avant mu woon na plainte foofee foofee ca commissariat central bu cees doon wax ni ki nga xamante ni moo di Assane Gueye dafa ñëwoon ca këram di ko laaj li nga xamante ni moo di somme bu toll ci 3,4 millions de francs CFA.